mooy wax nañu fi affaire gaaru routière yi ak garage yi ci dëkk bi transport bi Kër Massar ku ne gis na ne nu mu mel loolu tamit ñun mairie bi dana danañu yebal les service techniques ñu dem dans ces garages dañu bëgg ñu mettre fa en place des brigades d'hygiène brigades d'hygiène yi yoo xam ne nit ñi fay ñëw di jël oto ñu mën leen di leen di leen guider ci mesure di d'hygiène yi maanaam ci raxasu yeeg yëpp balaa ñuy yéeg ci oto bi li ñu war a def yëpp teg fa ay matuwaay yoo xam ne boo ñëwee ci gaaru ceer bi di nga fa jaar def li nga war a def ba pare yéeg ci oto bi ak ay sensibilisation yu mel ni comme euh, yi prospectus yi mas fu wane fi sànq ñu ko si joxe nit ñi di ko xool di ko xam boo amee tamit ñu fa man taxaw sax di wax tamit ñu teg ko fa ñuy taxaw tamit di wax su ko defee loolu dina gën a wàññi euh, kii bi beneen mesure bi mooy euh, toujours ci yeneen kii yi muy mel ni lu mel ni tànganaay yi lu mel ni gargot yi yooyu aussi euh, comité d'hygiène bi dina fa dem tamit ñu sensibiliser leen xool tamit est-ce que les mesures d'hygiène ñoom tamit jël nañ ko ndax ay place u lekkukaay la jaayukaayu lekk la ba xam mesure yooyu am na fa pour que nit ñi di jël mesure yooyu tamit bu ñuy dugg ci place yooyu ak bu ñuy génn ci yooyu beneen bi ci des aussi muy les jaaykatu café yeeg puus puusu kafe yi di wër yooyu moom interdire nañ ko ci commune bi pour ñu ko fiy jaay parce que c'est difficile ñuy controle cet gi wala yooyu donc mesures yi ñuy wax yépp nag suñu paree dinañ ko def dans un arrêté dinañ ko jox commandant brigade bi fi nekk nga xam ne képp ku ko def bu boobaa bu lay yoon jàppee yow yaa ko teg sa bopp beneen bi si des si le commandant Kër masaar yëpp di ko jooy Mahfous wax na ko sànq le matin dafay am rassemblement au niveau du station en face station Shell rassemblement de personnes disant que dañuy wut liggéey wala dañuy nàngam te loolu ñëpp a ngi koy décrier te wóorul loolu nag yéen yéen a ci mën a jël ay mesures pour que rassemblement yooyu dina bokk ci arrêté bi ñu leen di jox yéen a xam nan ngeen di def soit da ngeen fay wut des éléments yu fay nekk wala noo leen di def mais pour que rassemblement yooyu mu bañ a am gars yi ñu ngi fay def tamit genre marché noir ak yooyu tamit aussi di fa dajaloo c'est la même chose loolu tamit aussi bëgg nañu ngeen jël ci ay matuwaay loolu ngeen tas ko mu dañ fa beneen bi si dopp aussi muy wax nañ ko muy les marchés hebdomadaires marché hebdomadaire yi yaakaar naa ne bi fi am ñu autoriser ko benn rek la mooy marché bi ñuy def par jeudi fële cinquante 54 boobu rek la boobu aussi dinañ leen bind wax leen ñu suspendre marché bi jusqu'à nouvel ordre keneen ku fi def marché hebdomadaire ngeen gis ko boo leen ñu ko waxee tamit aussi ñu contacter ñun war a contacter ñu tas ko parce que marché hebdomadaire yi tamit nañ ko bàyyi lenn rek lañ fi tëjul muy marché yi nga xam ne mënuñu ko tëj parce que suñu yeewoo fa la ñuy nduggee fa la ñuy euh, jëndee li ñuy toggee ay añ ak ay leneen tëjuñu marché yi waaye tamit marché yooyu comité d'hygiène bi tamit dina fa dugg di sensibiliser pour que ñuy jël des mesures d'hygiène commerçant yi nga xam ne ñooy jaay ak ñiy jënd si loolu moom la ñuy def mais duñ ko tëj mais nag yeneen euh, marché hebdomadaire yi moom tëj nañ ko ci commune bi bu fi kenn def benn marché hebdomadaire nii ay luuma wala yooyu loolu yëpp interdire nañ ko dinañ ko boole ci arrêté bi. dinañu jéem a euh, waxtaan ak service d'hygiène ñëwuñu tey mais euh, kii Pape Diallo mi ngi fi pour que ñu xool bu dee ne war nañ def ay pompage si yenn marché yi laaj na yenn pompage yi yenn mesure d'hygiène yi pompage maire bi fexe nu ñu pomper marché yooyu ci biir commune bi. donc beneen bi si des aussi muy wax nañ ko muy surcharge oto yi loolu tamit aussi c'est des mesures yi nga xam ne gendarmerie moo ci mën a jël ay mesures muy Njaga Njaay muy Tata muy car rapide muy oto yu ndaw sax gars yi dañ koy surcharge loolu tamit aussi ngeen jël ci ay mesures au niveau de la commune dina bokkaale li ñuy tënkaale ci arrêté bi pour que loolu mu bañ a am ci biir commune bi. yaakaar naa ne commune bi spécificité yooyu la am par rapport ak yeneen communes yi te yooyu si bëri boo xoolee. mi ngi séviller autour du rond-point station bi nga xam ne mooy Kër Massar donc nag on va faire l'arrêté jox ko le commandant de brigade loolu tamit aussi ngeen dimbale ñu si ci li nga xam ne mooy xeex jàngoro bi la bokk donc yaakaar naa ne réunion bi mën nañu joxe ñaan léegi nag li ci des rassemblement amatul dara amatul dul dem jëfe ji loolu moo ci loolu moo ci des ñu ngi leen sant nag bu baax médecin chef aussi Euh, mairie bi jënd na ay garab mercredi incha allah bëgg nañ leen remettre garab yi nga xam ne mairie bi jënd na ko pour dimbale l' ensemble des postes de santé yi fi nekk wala case de santé ak district bi ñu jox leen ko incha allah bu àllarba loolu yëpp pour participer aussi ci xeex bi nga xam ne tamit xew na muy mm, coronavirus bi ñu wax ak ay détergent ak yooyu pour jàppale si yeneen yi nga xam ne lu mel ni école yeek yeneen ak yeneen donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm